ànd bokk ndey bokk baay xam ne ñu nëpp benn intérêt am muy intérêt commun muy le président Macky tey fi enjeu yi toll fi mu ne nii moo tax ne juge nécessaire que ni tey jii dafa jot képp koo xam ne muy ndaw muy jeune mu takku nekk benn bloc ñun ñëpp autour de son excellence le président Macky Sall parce que tey jii lépp lu ñu mën di def loolu taxawul président Macky yaakaar naa ni daf ñuy tardeel parce que équilibre réew mi dalul réew mi jàmm réew mi ak njariñu Sénégal tey jii si président Macky Sall kese la nekk nekkul faleen ginnaaw bi ñu xamee loolu la ñun les jeunes loolu moo tax ni formé wuñu ñëpp benn bloc ni wax ni incha allah dañ ciy ànd sillonner le département dañuy def lancement bi def un ndogu républicain comme ni nga ko defee fii à Toubatoul bu ñu fi jógee nag dañuy si wenn département bi commune par commune ensemble ñu ñëpp ñu tourner les douze communes rurales fa dem accompagner zone bu ci nekk nekk sa commune ni ñëw en appui gunge la jàppale la ba xam ni di fa gën a am doole gën fa mën a am taxawaay bu gën a dëgër ba xam ne li ngay liggéey foofu dina gën a yomb dina gën a mën a jàppandal yaakaar naa ni am objectif bi lépp loolu la tey du ñu tirer en longueur parce que léegi doog jot. mais aussi fi ñu gën a sensibiliser mooy ni demaat ci milieu rural bi commune bu ñu dem du yem ci ñun ñi kese ni wax xool ni ñuy déppale zones yi ba zones yooyu ñoom ñëpp nu jug dugg ci les réseaux sociaux di défendre le bilan bi xam ne président Macky Sall moom na teg sur place parce que tey jii amul kenn koo xam ni day critiquer président Macky Sall si bilan mais li ñuy def mooy c'est du sabotage léegi nag ñun dañuy taxaw léegi parce que bu fekkee nit buy wax doo wax doo tontu. bu yàggee ay waxam na gëm ko nit doo ko bàyyee muy wax chaque jour rek sa doo tontu bu yàggee dañuy gëm ay waxam loolu nag moo tax ñun jeunesse bi ñu ñëpp ñu takk nekk benn bloc ñun ñëpp nekk ensemble ñu dinañ dem défendre le président Macky Sall partout foo xam ne laaj na ko duñu tay duñu sonn dina nekk les boucliers di président Macky Sall ñun ñëpp autour du président Macky Sall benn intérêt nu am en commun muy le président Macky Sall muy les DG les ministres képp képp koo xam ne yor nga domb tànk tey ji lenn rek moo la ñor muy le président Macky Sall amul keneen koo xam ne tey ji ñu teg suñu intérêt en comme yëpp ñu teg ko à côté ñu défendre l' intérêt du président Macky tey yaakaar naa ni foofu lañ toll parce que kenn rek moo soxla muy le président Macky Sall keneen soxlawul kon la foofu la ñuy woo tout la jeunesse incha allah dinañ serrer la ceinture joxante mais dans la main ànd incha am ànd ñu ñëpp dugg dans les douze communes rurales séen na ko commune par commune wàcc du laajee di ci village par village dinañ ko def village par village duñ ci sonn duñ ci tàyyi duñu fatigué incha allahu rabbi ñun ñëpp dinañ ànd ci loolu liggéey boobu joxante loxo sa lépp lu mu laaj dinañ ko def lépp loo xam ne rek laaj na ko dinañ ko def en tout cas nag ni lancé euh, message ci autorités yi xam ne ni ci def dans le département de Thiès ni ñëw gestu jeunesse bi jàppale nu accompagné nu ci xam ni jeunes yi leen rek nañ am benn ambition muy liggéey président Macky ndaw ñi ñoom ñëpp xoole kenn ku ci nekk commune bi nga jóge ak weeru koor wi ak la fa bàyyi ci coono ak lépp ñu xam ne ñii leen rek moo la ñor muy la président Macky Sall ñii ku leen teg loxo yaakaar naa ni ci ndaw ñi ku ci teg sa loxo incha allah dina indi résultat président Macky Sall sa dinañ xam ne dina génn ci la élection yi ñu jëm si dina leer parce que ndaw moo moom tànk moo sawar yor sawarte koo xam ne dina heure bu bëggee jug jug dem moo mën a dem wax ak moroomu ndawam aussi révision liste yi ñu toll nii on a besoin de la jeunesse moo tax ne gën a takku pour organiser wu encore une fois dañuy xool ci yeneen côté yi ñun ñu xam ne ñu noor moyens yi bu ñu demee ba ñeleen dina ëpp organisation kon yaakaar naa ni leader yi war na noo gestuwaat jeunesse bi jàppale nu ñu gën a organiser wu metre les moyens parce que nit fu mu mënee demee di amul nekkul au nekkul dara war a mën a jël ay ndaw di leen di déplacer ci ay oto wala dara di leen yóbbu ci bureau de vote di leen di inscrire waxantuwuma laak ñun ñu xam ni ñun noo yor kon lu mu leen jaral ñu war nañ ko mën a jaral kon ni ngi lance appel tous les leaders du département ni xam ne ñii jugunu pour dem pour seen intérêt crypto personnel taxu leen a jug ñii leen rek moo leen tax a jug benn ambition mu la président Macky Sall kon ni ngi koy lance appel tout le monde di nuyuwaat ñëpp. pass bi nga xamante ni jël lancé na programme bi mu nekkoon ci période bu am solo ndax dañ ne woon kat Sénégal ndaw yi dañoo sonn ba ñuy dajj boutique yi ñenn di dajji banque yi mu ñëw daal ne loo leen bëgg. je pense que ne conseil présidentiel boobu jam ñaajo ndaw yu bëri ñoo ngi foon ñu proposé ko ay orientation mu jublu si li nga xamante ni moom mooy xëy ndaw yi te ñun ñi nga xamante ni nag ñun ñoo ko jox proposition boobu vraiment gis nañ suñuy rakk gis nañ suñuy mag gis nañ suñuy yaay ñu si liggéey boo déggee ñu naan FERA boo déggee ñu naan euh, les stagiaires yi nga xamante ni moom la jël ñu nekk si stade yi boo déggee ñuy wax affaire de programme reboisement boo déggee aussi ñi ngay wax si hôpital yi ñu leen recruter je pense que loolu rek dafa doy sëkk si pour défendre le bilan du président de la république te fii nga xamante ni ci lañ nekk defe naa ne am na ay ndaw yoo xamante ni vraiment bokk nañ ci programme boobu te dañ koy sant bu baax le président de la république kon nag ñun ñu nekk ay ndaw suñu loxo jotu suñu ginnaaw ñu nekk aussi ay ndaw yaakaar le président de la république du taxawaay du leen lu dul fexe ba porter candidature ndax ñàkk a porter am mooy ñi nga xamante ni président de la république li jëntil na leen mais les 65000 emplois ñooñu nga xamante ni ay ndaw lañ wala ay jigéen lañ wala suñuy yaay lañ suñuy papa lañ xam ne dañoo yaakaaroon le président de la république ci programme Sénégal émergent bi donc loolu bu ñu demee bàyyi candidature bi nga xamante ni moom la ñu bëgg président de la république accepté ñu ko parce que juridiquement tout le monde accepte que c'est une réalité lu mën a nekk la waaye moralement donc le président de la république koy déglu waaye ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy ndaw département bi dafa am taxawaay boo xamante ni dañ ko jëg tey mooy investir le président de la république te investir boobu ñu ko nar investir nag ñun wax dëgg yàlla amuñu si fay c'est le président de la république amul keneen te nag dañuy invité à tout le monde ñu jéem a serrer la ceinture jéem a sensibiliser les jeunes surtout surtout les primo-votants su ñu waxee les primo-votants c'est parce que ay ndaw lañ mais ça ne pas dire que ndaw yëpp dañoo ànd ak opposition ça veut dire que ndaw yëpp dañu leen war a conscientiser c'est que parce que dañoo war a jéem a aussi régler ndaw yi. ñu am fu ñu dugg donc nag programme yi état yi bëri na essayons maintenant de faire notre maximum pour promouvoir les jeunes jàppale ndaw yi ñu am fu jàpp je pense que bu ñu ko defee élection yi di ñëw réellement mën nañu gagner massivement. diplomatie bu mu xes a réussir au niveau international dama yaakaar ne loolu rek jar na déjà ñu soutenir la candidature du président Macky Sall képp koo xam ne citoyen nga africain nga war ngaa soutenir candidature bi pour sauver Afrique ndax xam nañ Sénégal dafa nekk. position géographique boo xam ne su Sénégal basculé rek soo moytul sous-région bi yëpp day yàqu te loolu amagul parce que leadership bu président Macky Sall moo ko teye ba léegi ñun ñëpp xam nañ la Mali mu ngi nii mooy suñu voisin proche Mali ngiy tàkk ak ñeneen ak ñeneen te force yooyu dugg Mali su ñu teewul rek ñu am njit boo xam ne ku dal la ku mën a am maslaa la am diplomatie la rek loolu force yooyu day ñëw fii donc li ko teye ba fermer frontière yi ak suñu force de sécurité yi loolu président Macky moo ko def ci leadership am léegi suñ ñëwee au niveau au niveau au niveau national ñu jël ne naa le monde rural dëkku àll yi lan la ñu war a xaar ci président Macky Sall lan la ñuy xaarati sax laay wax ndax am nañ ba pare ñu gis ne monde rural am na ay jamono soo buggoon jóge fii jaan dem Tasset mbaa nga joge ngu jaan dem Touba Toul nga am problème wu ay yoon di nga am problème mu yoon mbaa nga feebar bugg a faju donc le maintien de ces services sociaux de base nga feebar mën a faju bourse sociale yaa ngi fi te nee na su falaat da koy yokkaat bu ay junni junni junni kenn ku ne ci ñun am nga ci sa kër mbaa sa koñ koo xam ne su añee du reer mënul sa assurer éducation de ses enfants maintenant bourse sécurité familiale yi nga xam ne moom la président di joxe loolu bokk na ci li nga xam ne day sensibiliser gars pour ñu dugal seen doom yi te kenn ku ne xam ne éducation mooy mooy moo yor réew donc déjà le maintien des service sociaux de base muy njàng mi di ndox mi di courant bi di faju bi di dem bi ak dikk bi loolu moom la monde rural war a gën a xaar ci président Macky Sall te loolu am na ba pare mais su ñëwee dina gën a yokkuwaat deuxièmement bi mooy ñun suñu nee monde rural on parle d' agriculture agriculture ku ko wax da ngay wax intrant intrant de qualité mais également da nga wax équipement donc ñu gis ne président Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi mu ngi fiy def ay jéego yu bari ndax defe naa ci moom la ñu xamee bon impayé amatul ñun ñëpp fii la ñu nekkoon ay bon impayé da doon am kilo gerte bi léegi mu ngi cinq cent kilo dugub bi mu ngi 500 te loolu yëpp su amee c'est président Macky xam na njariñu baykat bi mooy lan. mënoo aussi wax monde rural te waxoo càmm dañuy sam mais élevage boobu pour nga am ko il faut nga am espace il faut nga am sécurité aussi pour du mën a sàcc sa li ngay sàmm. maintenant xoolal loi bi ñu voté ensemble par exemple pour pour pour pour pour criminaliser le vol de surtout du bétail mais loolu yëpp su fekkee ñi nekk ci kaw bi di dunde mbay di dunde sàmm di dunde dem ak dikk suñu sagganee saggana saggana saggan ba président Macky Sall rëccu ñu loolu nga xam ne asu néew la ñu amoon ci moom te yaakaar ko li ko ëpp ci moom ci mandat bii di ñëw. nekk conseiller municipal au niveau de la mairie de Touba mais également di wax ci turu. coordination des jeunes de la commune de Toubatoul. Bien vrai que je ne suis pas officiellement le coordinateur, mais je suis le porte-parole du jour. Euh, di de remercier tout le département, mais particulièrement les 12 communes rurales. Parce que ndogu républicain bi bu réussir tey mën naa ne 12 communes rurales yëpp ñoo ci jàpp. Euh, di remercier nag les autorités locales en commençant par le maire euh, monsieur Ahmed Dieye di remercier Abdou Diouf chargé de mission mais également di remercier l'ancien maire monsieur Daouda Tine ak l'honorable député Fat Sène di remercier tamit responsable jeunes yi nga xamante ni ñoo fi nekk parce que mën naa ne tey bés bi su réussire joué nañu ci rôle bu ama ama ama am solo di remercier tamit responsable jeunes yëpp yu joge ci département bi parce que yaakaar naa ne heure bii démb ku ñu noon bés bi dina am da nga naan déedéet parce que programme nañu ko mais amoon na ay xëccoo ci suñu biir yoo xamante ni jàpp nu woon ne bës bi dina am tey kon bës bi su amee ñoom dañoo génne ci seen poos kenn ku ci nekk da nga joxe un une somme boo xamante ni vraiment fooguma woon ne sax dina yegg foofu mën ko mëtal di remercier nag euh, ma Mamadou caw tamit parce que jàpp na ci bës bi nekku fi mais personnellement daf ma woo ne ma carrément euh, dina ci participer di remercier tamit Ablaye Tine vraiment jàpp na ci bés bi tamit di remercier Maodo moom tamit personnellement jàpp na ci bés bi di remercier Mamour bu ma limee damay juum ñoom Issa gars yëpp kenn ku ci nekk jóge ci département bi ñoom Dan euh, ñoom biraan ñoom ñëpp ku ci nekk da nga yëkkati xaalis joxe ñoom Yaama ñoom Gallo Maysa Assane Diouf euh, mbay ñi euh, ku lim juum yàlla xam na ne bëgg na maa tudd ñëpp parce que bëgguma tudd kenn ñu ne tudd ñu kii parce que ku ci nekk sa alal dem na ci parce que bés bi xam ngeen ni mu demee yéen ñëpp mënoon naa ne tey jii bu ñu toogee fii rek man fooguma woon ne tey bés bi dina réussir kon maanaam sagal ngeen tuubaatul parce que sagal tuubaatul mooy yëkkati seen alal ne na bés bi am parce que bu ngeen téye woon seen alal mën naa am bés bi mën na ñàkk am kon dangeen yëkkati seen alal participer dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ah liñ thème bi nag mooy euh, enjeu euh, impact du second quinquennat yaakaar naa ne dans le monde rural li ngeen ci wax ci biir salle bi rek doy na pour tënk rek dama naan le président Macky mooy le meilleur candidat pour le monde rural parce que le président Macky li mu def dans le monde rural de 1960 à aujourd'hui amul benn président bu ko mës a def dans le monde rural amul que ça soit accès à l'eau accès à l'électricité les bourses sociales mais surtout l'accès à la santé mais également les pistes rural parce que tey comme ni ñu ko waxee avec l'acte 3 de la décentralisation amatul dara loo xam ne lu ñuy ñeewee taax yi la lépp luy am ci réewi taax yi am na léegi ci dëkki kaw yi kon mën naa ne ñun bu ñu nekkee ay dëkku taax président Macky Sall moo ñu def ay dëkku taax tey dëkk boo dem am na courant dëkk boo dem am na case de santé dëkk boo dem am na yoon dëkk boo dem nit ñi ñu ngi fayeku ay bourse sociale dañuy dégg ku la ne man su ma lekkee xaalisu nguur ci président Macky Sall la kon nag di lancer un appel solennel à l'endroit de responsables yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ñu suivre les pas de Mamadou Thiaw je ne peux pas le citer mënuma koo ñàkk a wax xëj na dinañ ne xëj na man daf ma def chargé de mission wala mais déedéet démb ay deux heures du matin la ma woo ne ma seen groupe bi dégg naa ay coow parce que da ngeen am problème mu xaalis ak yooyu je ne suis au Sénégal mais je vais en charge yaakaar naa ne naa ko Maysa bi mu ñëwee kon loolu rek dañ ko ci war a sant di ko ci gërëm di sant tamit responsable yi nga xamante ni yëpp ñoo fi nekk comme ni ma ko waxee léegi en tout cas ku lim da ngay juum ku lim da ngay juum mais responsable yi fi nekk yëpp jàpp nañ ci comme ni ma ko limee léegi responsable bu fi nekk jàpp nga ci muy ku ma tudd muy ku ma tuddul xëj na moom dafa ma woo téléphone rek moo tax ma tudd ko mais ñëpp jàpp nañ ci ñi fi nekk ak ñi fi nekkul yëpp kenn ku ci nekk sa alal dugg na ci pour bés bi mën a réussir mais nag di leen ñaan ñu gën a dooleel ndaw ñi parce que tamit politique moom dama ne base la te ndaw bu amul base mënul def politique boo xamante ni bu baax la kon nañu dooleel ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci base bi n'est-ce pas ni ko le ministre Antoine Diome defee à Xombol na ko ñeneen ñi def dans les autres communes parce que moom tamit vraiment mu ngi jàppale waa Xombol ci fi nga xamante ni foofa la féete ni ko Augustin di defee tam Fandène keneen ak keneen di ko def nañ ko def loolu Ablaye Dieye di ko def ñeneen ñi ci des nañ def loolu ñu dooleel ndaw ni jox leen ay poste de responsabilité parce que fii tey ku ñu fi joxoon ministère nga gérer ko ku ñu fi joxoon direction nga gérer ko kon nañu dooleel le monde rural parce que dans le département de Thiès à chaque fois sous le président Macky Sall di gagner le département de Thiès c'est grâce aux douze communes rurales ah te douze communes rurales yi mën naa ne ñu leen lu ñëw day des ci ville bi te à chaque président dama naan à chaque bu ñuy gagner ville bi bu ñuy perte ville bi li président di jox ville bi moo ëpp ndombo tànk yu mu indi ville bi la koy jox mais monde rural bi nag du leen jox ay ndombo tànk amuñu ay doole ñun amuñu DG amuñu ministre bon benn ministre la ñu am amatuñu ministre benn ministre kese lañu am amuñu beneen ministre mais xoolal ñaata DG ñoo nekk biir Thiès ñaata ministre ñoo nekk biir Thiès ñaata PCA ñoo nekk biir Thiès te à chaque fois suñu demee cees dañuy dóor dans la commune mais effort yooyu président di def dans la commune bu ko defoon dans le monde rural je vous assure on va renverser la tendance kon nag xëy na ndogu mu ngi waaj a jot li ñu waroon a wax yëpp mënuñu koo wax